xam nga fu ma wàcc ci département bi ci tàng yii damay dénku ñi nga xam ne ñun ñoo ànd bokk jëm benn place ma ne lu ne ak waxtoo waxtu bi ñu taxaw tembe dafa am loo xam ne woykat bi daf ko wax doxal sa dox waxal sa wax suñu wax ak suñu dox benn mbir la war a doon nakañ fexe ñu réélire Macky Sall mars 2019 wax naa ko pasi danaa ko waxaat fii nopp nanguwu ko sax dégg xel mënu koy xalaat waaye yàlla ak mbiram su yàlla defoon ba ñu am jafe-jafe 2019 kenn du xalaat affaire maire maire bu yëg daanu parce suñu mbër mi bu daanoo yàlla tere yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñi ñëpp mairie taluñ ko wax ji may wax fépp fu dem naa ko wax ku ci nekk la ngay mébét xam nga ko liggéeyal ci loolu waaye li nga xam ne mooy mbir mi te ñu wax ko mooy suñu candidat bi nañ fexe mu jàll ci anam yu mucc ayib bu jàllee ci anam yu mucc ayib lépp sot te lépp ju dina yoon waaye nag bu ñu yaatu nag ba yaakaar ne lépp sotti na élection sottiwul lu mooy bañ ñu wiiw mbala ñu ne waa te moom ñu ñaan yàlla ñu ne wiiw nañ xam ne le 24 février bii di ñëw mbir mu jafe lay doon du caa gën sax liggéey bi ñu liggéey taxul ñu yaakaar waaye soo déggee coow li ci rajo bi tey ak ci télévision bi dangay yaakaar ne réew mi du réew mi ñu dund lañ nekk dégg naa barak démb ba ba discours bi pare ci Macky Sall 3 avril kàngaami politique opposition bi yëpp jël rajo bi di wax ku nekk a ngi naan réew mi defu fi dara